Euh, sang bi ziar naa la di la bàyyi nga nuyoog mbokk yi. Euh, soxna Mbaye ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax a baax. Mhm. di wax bisimilah rahmaani rahim auzu billahi mina shaytaani rajim di la ziaraat itam bu baax. di sant itam ci kàddu yi ak invitation bi nga ma invité waat tey. jox nañ la kàddu gi. ndeysaan loo ñu laaj rek fas yéene nañ ci mhm. tontu suñu kéemtalaay kàttan teg ko ci diine. Lamine Ba ñu tànn benn jàngoro parce que damay bëgg. émission bi ñu di ci tànn par jàngoro. Mhm. di seet nit ki nga xamante ni moom la ñu invité. spécialité am ñu mm. waxtaan ci. tey nag jàngoro bi nga xamante ne moom la tànn mooy jàngoro euh, jàngoroy hépatite B. Mm-hmm. hépatite B nekk jàngoro joo xamante ni dafay tàmbalee bari. Mm-hmm. moo tax faaw dinañ ci waxtaan ak nit ñi. Mm-hmm. d'abord lan mooy définition hépatite B. hépatite B li ñu njëkk wax ni moom mooy définition am muy hépatite c'est l'inflammation du fois virus la bi nga xamante ni dafay attaquer fois wu nit ki. virus la bi nga xamante ni ci cellule foie wu nit lay dugg. fa lay placé wu.

kon nag nekk na feebar bu xam te ni feebar bu am solo la. jar na waxtaanee bu jar a waxtaanee. te mi ngi mhm. sonal nit ñi mhm. solution yi bëriwul. Mhm. en man feebar bi mi ngi man dal euh, depuis 2007 boobu maa ngi Italie euh, mu métti woon ci man nag jaaxle woon naa tamit ndax euh, fu ne dugg naa fa dépensé naa tamit xaalis bu dul jeex ma am sama benn xarit bu baax bu nekkoon fi Sénégal woo ma téléphone expliqué woon ma ni ma am na ku ko fi mun a fa faj bi ma ko waxee nag.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 am na hépatite D am na hépatite C am na E am na G maanaam mën nañu jàpp daal ci xayma lu tolloog juróomi xeetu hépatite am na mais très souvent hépatite G ku ko am dafa fekk ni dem nga ci phase terminale bi phase terminale hépatite G mhm. hépatite G ku ko am rek ba docteur yi bindal la ni am nga hépatite G daanaka kooku day am sida hmm? presque mën nañu wax ni sax sida la ci ni ma ko ni ma ko mën a expliquer. Mhm. en général ku ko am daal am nga sida virus boobu ñoom ñaar daal pratiquement ñoom ñooy ànd. hépatite bi bu njëkk dafa xaw niroog tuuti ak fièvre jaune. Mhm. niroo nañu trop hépatite A bi. Mhm. mais lay nekk fii bu gaaw lay nekk transaction bu gaaw lay nekk. hépatite B bi nag moo gën a dangereux. parce que mooy hépatite bi joxe cancer. moo tax mu danger lenn rek mooy seen danger par rapport ak yooyu hépatite B mooy hépatite bi xam te ni moom dafay indi direct daf lay yóbbu direct ci cancer képp ku ko am boo deewul yàgg yàgg dañ la yóbbu ci cancer hmm. loolu mooy danger wu hépatite B euh, donc ñëw nañ ci forme yi nga xamante ne moo am ci hépatite waaye itam euh, bëgg nañu xam itam hépatite naka lay wàllaatee euh, hépatite mi ngi wàllante ci wàllu deret deret waaw hépatite mode de transmission yi transmission sanguine le direct. donc li ñuy lekk du ko contact direct avec le sang. Mm. non daanaka lekk dana am nu mu ko joxee mais dina ci ñew inshallah ci lek nan la koy joxe. dana am formule lek yu koy joxe. Mm-hmm. kon nak nañ ci bayyi xel. Mm-hmm. te dana am wax ci biir lek yan xétu lek lañu lek ba hépatique mën dal. Mm-hmm. mais ni ñu mën wax dal ci 99% 99% mm. ñi am hépatique mm. ñoo am contact direct avec le sang. ci sen deret ci sen deret loolu moom mën nañ ko wax. maanaam surtout ci def euh, nañ ma baal ci terme bi jàngale moo ñu ci tax a jóg. Mhm. muy def rapport sexuel non protégé maanaam sans utiliser préservatif. Mhm. loolu day jur jàngoro bi. bu fekkee malade bi daf ko am ak ku amul malade bi am ko daf koy wàllu directement. d'accord muy benn ñaareelu mbir ba itam ci wàllu euh, euh, layset puso piercing wala tatouage yi. yooyu yëpp dafa nekk ay mode de transmission yi xam te ni nit mën na ci wàllu moroom kon donc ni nga xamante ne noonu la ñuy dafay delluwaat ci li nga waxoon sànq ne am na hépatite dafa nuroo ak sida lu bari parce que euh, mode de transmission yi bu ñu ko xoolee. Mhm. ak mode de transmission li nga xamante ni mooy jàngoro sida. Mhm. benn mode bi la. Mhm. en tout cas bi gën a garaaw. muy contact direct avec ça muy lay maanaam kii dagg nga dagg ci. mu dagg ci. ñu jam kii jam la. jam la pikiir kii pikiir la. voilà wala ngeen def rapport sexuel. voilà wala boog docteur bi nga xamante ni dafa doon faj ab ab malade. waaw pikiir bi rëcc jam ko. bëri na ay kaaw docteur yi ma xam ñi nga xamante ni man maa leen traité instant bi euh, hépatite B barki bi te accident boobu moo leen dal. fa mu ko wax taw waxoo prévention mhm. kon nit ki nan la mën def ba maytu ko am solo la mhm. te loolu nak suñu diine moñu ko ñëk ter mhm. di di di def yeen and yeen moy yeen njaalo yi ci top sa bakam dafa nek li xam daf ñu indul ay jafe-jafe kon nak nañu moytu xam ni bi nga xamante ñu koy sey sans préservatif oustaz yi wax nañ ci ministère de la santé wax na ci wax nañ ci lu ne ni nañu moytu di def sey sans préservatif day jur màndu mm-hmm. gi day jur ay mm-hmm. feebar mm-hmm. te yii xeetu feebar ay balaa la bu ñu dee seet ndax buñ ko seetloo ba ci biir nee nañ la cancer la jur lay jur te dafa gaaw feebar bu gaaw la attaque am dafa gaaw trop te tubaab yi mënuñu ci lu bari tubaab yi liñ ci mën mooy tànk demul ba def la cancer mënuñu ko faj tubaab bi ndegam tubaab bi ne ñoom ñoo dem ba toll foofu waxuma la ñun fi au niveau Sénégal dafa nekk lu doy waar lu doy waar waaw kon nag li ñuy gën a wax daal mooy nit ñi nañu gën a moytu Mm-hmm. def attention ci wàllu contact direct ak sang nit daal deret bi nga xamante ni moom du sa deret nga moytu ko daf lay jural feebar mm-hmm. surtout itam maa ngi tolloon sànq ci docteurs yi docteurs yi docteurs yi docteurs yi def bu baax a baax a mm-hmm. bokk liggéey bi docteurs yi dañuy faj ñun ñuy faj mais yàlla rek mooy wéral docteur bu mag bi moom muy yàlla nit mënul sax faj ginaar déedéet kon nit boo fajee nit mu wér yàlla rek la neex kon nag dañu jëlaat lépp wakkirlu ko teg ko ci loxo yàlla mhm. xam ni yàlla daal mooy docteur bu mag bi moom mhm. mën faj euh, docteurs yi très souvent accident boobu daf leen daal parce que ñoom ñoo gën a nekk contact direct ak ñoom ñoom ñoo leen di vacciner ñoom ñoo leen di perfuser mhm. te toujours dafa am risque bi ñuy dund ak ñoom dëgg boo demee hôpital yi deret yaa ngi partout virus yaa ngi foofu partout te seen liggéey yàlla na tamit très souvent ci accouchement yi itam. ñiy man mës naa ci am boo xamante ni sage la. Mhm. maa invité woon benn nit mais ci accouché. Mhm. la jàpp ci la jëlee sida. ci mësta mooy. mësta mooy yàlla mais doon na accouché koo xamante dafa am sida. même virus hépatite bi dañ ciy gis nga xam te ne ñëw mun la Serigne Bara ñëw cabinet ba Géejawaay. Mhm. di la man virus bi dal na ma mais man xamuma fan la ma dalee. amuma jëkkër feebar bi feebar bii dama demoon hôpital wala demoon centre de transfusion sanguine di maye deret ñu wax ma dama am virus hépatite léegi man je me pose la question fan la ma feebar bi duggee mhm. aw ma jëkkër musuma sëy te docteur bi nee nañ ma ci sëy la mën ëpp li muy duggee ci nit mais en général itam dafa nekk feebar bi xam te ne dañ koy wàllante sa parent wala nga nekk ak malade di ko assister. di ko mhm. yëkkati ak di ko tëral. Mhm. wala sa frère hospitalisé hôpital docteur yi découvrir guñu lu ko dal yow it xamuloo ko wala même bu xamee itam da di ko jege malade yu bëri ñoo ngi am mhm. dafa metti sa mbokk wala sa jëkkër. feebar soo ko defee ñu ne dañ koy daw da koy daw. dafa moom ca ba muy wér léegi mu feebar mu di ko daw. merci beaucoup léegi nag en jëkkër jooju day génn àddina femme bi dara jotu ko woon mu génn ndekete souffrir te waa musul am fitu taxaw wax jabaram ni ko dam am virus te fay and ak mom ci nonu sey bi c'est c'est ça qui est dangereux mhm. loolu motax virus hépatite nek virus bu day war. Mhm. te danaka ñi ëpp ci ñi ko am duñu am solution mhm. te li li tax ma wax de duñu am solution hépatogastro-entérologue yi ci dëkk bi ñoo ngi may déglu malade yi am ci kaawu hépatite bëri na te mënuñu ci dara manam bo déggee mënuñu ci dara duñu leen sax nangu jox garab parce que day fekk ñu nek cas avancé dafa nek ñu nek phase aiguë bu jëm ci phase bi xam tane moy phase chronique bi manam ñuy porteurs sains yi. Mm. ñoom la ñu les porteurs sains du virus. porteur sain bi bu ko amé en général dañ koy wax ni ko instant bi demal fi rek 3 mois 6 mois après nga ñëw ñu contrôler waat ñu xol fan le virus bi toll. Mm-hmm. bool malade bi su demandé un médicament ñu ni ko non mënu goo am médicament demal nga tok xaar nga defaat ab dans 6 mois nga ñëwaat amo amo garab ñu ne y' a pas de médicament pour ça c'est tout simplement. comme loolu amna danger hein c'est est un danger te loolu lu mat leeral la.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 mu nekkoon nag affaire bu ma bu ma bu ma handicapé quoi mais gis nga bi ma ñëwee ci yow nga jox may garab ma dem tollam tuwaat ko muy deuxième fois fois damaa ñëw def analyse zéro lépp dañ lépp dañ set wecc médecin bi nga xam ne moom ma doon suivre muy hépatologue bi dafa ni ma mais comment ça s'est fait affaire bi sa koo jaaxal quoi ma ne ko nag euh, yow xam naa doo xam waaye man xam naa loolu nag ma ciy sant bu baax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 ni qui est fait hépatite sans pour autant ça qu'il dafa la analyse mm-hmm. parce que en âme et conscience ñun mënuñu faj te ànduñu ak docteur mm-hmm. médecine traditionnelle nous dem te àndul ak moderne moderne nous mënul dem te àndul ak médecine traditionnel. mais très souvent ñi def bilan général Nous dem hôpital ñu nous deret suñu may nous automatiquement ñu nous dañu am hépatite mm-hmm. en ce moment là euh, ñoom wa centre de transfusion sanguine ñom ñolay lay orienté ci ben hépato gastro entérologue kooku boobaa moom moo lay yor ce suivi mhm. médical di le suivre mhm. euh, ñaaralu mbir ba itim ci ñi koy xamé ñun nee la ci ñi dem maye deret mhm. ñaaral bi itim dañuy def ñan ñi def dem defi ben bilan rek tok ba ben fin d'année wala décembre ni ñu ah suñu yaram nañ dem defi bilan ñu gis ci hépatite bi mais liñ koy xamé ñun ci ñi ëpp malade bi buy ñew buñu ñu gisee bi dañu gis ni toujours comme ni ko waxee bët day jaune. day jaune karaw bi day ruus. Mm. ni kooku day perdre poids day am ay fièvre fitam bi day teuf yi d'accord yaram bi di diis japp loos japp ndigli japp suuf tankam yi muy tang te très souvent yaram bi day dem ba day sec. muy perdre poids bu baax baax. te toujours day am ay métit ci fi ci point bi. moy ñu dañ wax rek fay tite sax yaakaar ni est-ce que du cancer moy ak ci yaram. Mm-hmm. day tite koku day nek day sentir ay métit ci point bi ci point ay point de côté. ay point de côté te day gaaw son day dem ba yaakaar ni sax dañ ko liggéey. Mhm. te fekk ni virus moo nekk ci yaram moo nekk ci yaramam tayal loo ko. tayal loo ko mhm. te loolu mooy nekk li ci gën a. dootoo am goût à la vie daal dootoo euh, am na ci symptômes yi. nga xamante ni moom la ñuy faral di gis maanaam euh, bu ñu gisee koo xamante ni dafa am ay hépatite wala boo yeggee ci phase terminale lay doon biir bi day neew ba pare dëgër. day rëy. biir bu pare dëgër. day dëgër tey bu dee jigéen la da yaakaar ni ci dafa am ëmb dafa ëmb. Mhm. bu dee góor la day yaakaar ne ulde moo ne ci biiram wala benn genre xeer bu ci biir bir bi day ballonné day joy def galaw def ay gaz. Mhm. yaram bi day dem ba dootoo gis. te dinaay dégg ñuy faral di wax ne gaz boobu bu fekkente ni da nga tëdd nekk malade eh, eh, hépatite nañ ma bal bu démé ba nekk phase bo xamante phase terminale la. Mhm. gaz boobu bu génné nit ñi dootuñu ñu mëna tok ak yow. non ni ko day am xet sax. voilà hépatite même bu dul wax question gaz mais da ngay am benn erreur boy dégager ci à tout moment. d'accord mais hépatite itam dafa nekk fièvre bu bu mëna a tricher. parce que tricherie feebaru hépatite nit mën na ko am di la romb va et vient di dem di dikk te du ko xam. te du ko xam mooy ki xam te ni dafa nekk porteur sain bi. kooku maanaam boo déggee ñu bëri ñu naan leen da ngeen am mm-hmm. hépatite mais amul danger porteur mm-hmm. sain ngeen mm-hmm. parce que loolu c'est très dangereux parce que virus hépatite virus bi nga xam te ne bu ñu la nee porteur sain ci wolof maanaam virus bi mi ngi sa deret placé wu ci sa cellule foie mais agirul. mais agirul deful ben effet deful benn effet. Mhm. nit koku mën na toutes ces activités normales. Mhm. mais dafay wàllaatee rawaat dafay mën a wàll nit ki. da fay a wal nit te jangoro bi mën yewu à tout moment. monnaie ou suba. ou yewu une semaine monnaie yewu yow un mois monnaie yewu yow 10 dix ans comme monnaie yewu yow 50 cinquante ans comme à vie monnaie na d'accord motax tax mu dangereux. d'accord xam nga nit ñi ku nekk tolloo ay anticorps. Mhm. tolloo ñu itim ay antigène

dafay nekk ci cellule foie bi placé mm-hmm. mais day yàq roño yi. Mm-hmm. yàq gàddaam bi yàq bile bi yàq camp pancréas bi. ndax xam nga hépatite li tax sax suñu mbokk docteurs yi. Mm-hmm. di wax ni ku am hépatite duñ la sax nangu jox yenn garab. Mm. parce que gis nga tuyau bu fattee. Mm. mbayeen kenn du ci sotti mbalit. déedéet. tuyau évacuation d'eau. boo war a naan mu fatt. nga di ci sotti mbala tuyau boobu day gën a dawale ngay gën a fat mhm. loolu mooy problème mu hépatite parce que moom fi mu placé moo dangereux te garab bu nit naan sa xol lay dem directement après mu doog am ñëw ci sa deret propagé wàcc ci yeneen organes yi mhm. léegi cellule léegi virus hépatite saay-saay la mhm. moom dafay xool ni nit ki li mu gën a soxla mooy moteur am muy xol bi moom mu ñëw taxaw fa nag fa lay jëkk a endommagé yàq ko di ko yàq di ko yàq di ko yàq di ko yàq ba ñëw ci poumon yi ñëw ci ci gàddaam bi ñëw ci pancréas bi yàq cër yi moo tax nit ku am hépatite bu demee ci phase terminale bi très souvent yaramam yëpp da koy yàq day yàq organam yëpp bala mu koy rey. Hmm. ñun nag suñu cabinet. Hmm. bu fekkee da nga nekk ci phase aiguë. Hmm. mën nañ koo faj mais ñun mënuñu faj cancer foog ñuy leeral. mënu leen faj cancer déedéet ñun mënuñu faj cancer. hépatite bu nekk phase aiguë phase maanaam mu nekk porteur sain bi mhm. ñun porteur sain la ñu a faj d'accord mais mënuñu faj cancer mënuñu faj ki xamante ne dafa dem ba nekk phase terminale phase terminale wax kay d'accord lu leer na ñi la wax nekk loo xamante ni dafay yàq foie comme ni ko waxee mhm. te it du ngeen faj cancer du ngeen faj itam ki nga xamante ni dafa am hépatite mhm. ba pare toll ci phase terminale mhm. ki ngeen di faj mooy ki nga xamante ni phase aiguë nekk mhm. maanaam jàngoro bi tëralagu ko sonalagu ko xamu ko sax woon mais dem na ci bilan bu mu def wala ci analyse mu def mu découvrir ne virus euh, bi nga xamante ne mooy hépatite mi ngi ci moom donc mu gaawantu ñëw seet si leen léeg-léeg ñu gaawantu dem seeti docteur léeg-léeg ñu gaawantu ñëw seet si leen est-ce que yéen ak docteurs yi bokk ngeen même traitement euh, docteurs yi bu ñu ay calmant lañ leen di faral di comme ni ñu ko waxee sax sànq. ay mm-hmm. calmant rek lañ leen di mën a jox. Mm-hmm. ndax euh, ñoom trouvé guñu euh, trouvé guñu euh, antidote bi nga xamante ni moo mën a tax nit ki du hépatite bam wér. Mm-hmm. mais ñoom mën nañ la protéger mën nañ la immuniser. immunisation bi nu muy demee mooy ñu vacciner la contre hépatite B. bu fekkee am ci leeral. bu fekkee amoo ko ndax te yenn saa yi nga gis benn kuréelu këru liggéeyukaay. nga jékki-jékki ñu ni dañuy maye.

vaccination de masse. defar ay dépistage ba pare. ak ci jàngoro bu mu mënti doon. mais sénégalais yi dañu ragal dépistage. parce que bu sénégalais boo ni kaame defal la dépistage mu ni non. Mm. damay bañ nga wax sama feebar ñu gis sama feebar. même dans l' armée même ñu nekk ay agent assermenté dans l' mm. ci biir armée daf ci bëri biir militaire yeeg gendarme yeeg ñu bëri dama gis ay cas yu ko ci am te dañ koy nëbb te feebar boobu waratuñ ko nëbb bu nekkee ci phase aiguë la nekkagul phase chronique mën nañ koo faj mm-hmm.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

évolution bi nag parfois dina gaaw. Mhm. comme parfois évolution bi itim dana yéex. Mhm. évolution bi nag mën na dem ci ci benn phase lu mu gudd gudd ci quinze en quinze en vingt ans ci évolution wu yaram bi. mu mu ci sa yaram mu évoluer sa yaram rek. mais toujours li ma wax rek dafay yàq say organe mhm. organe nit nag ci biir biiru nit ki comme ni ma ko waxee sànq. foie beeg maanaam su ma ko déggee max la. max la. day nekk ci biir di di di di di di di fërxal rek. virus virus loolu la. virus max la day yàq ci biir. lu muy ronger système u nit lay yàq. mooy li ñu wax rek genre feebar yooyu dafa mel na. day yàq ba a génn. day yàq ba ba mu dafa lay yàq ba pare. bu génnee ba nga commencé yëg métit na la leer ni. boo fekk na moom avancé na waaw am na ñi xamante ne waaw am a yëg seen yaram ñi xamante ne très souvent dañuy def seen bilan. yenn saa yi mm. ñu dem centre de transfusion sanguine maye deret. Mm. ñëpp dara teel a mucc ci yooyu feebar. d'accord am na ñoo xam te ne itam da nga leen dox la non hépatite bi am nañ ko waaye ah yooyu du def dara mais parce que yëgoo dara ci sa yaram mais bis bu la daanelee mhm. ah, nga xam ni yàlla kenn la day nelaw rek waaw te kuy nelaw di nga yeewu waaw day yeewu day yeewu <laughs> loolu mooy danger bi euh, li ma ci yokkaat leeral waaw mooy hépatite ci wax dëgg yàlla si ñun niñ ko gis gisee mhm. li ëpp ci cas yi ñu am muy sunu mbokk moodu moodu yi ñoom li gis ni vraiment dañ koy am mais ñëpp yemuñu ndax bu ñëpp yemee am ñu gëdd seen cër mhm. ñi baax ñi ak ñi amul tax ñuy wax ñi ko am lañ wax dañ koy am nekk yu muuru nekk à l'extérieur mhm. ci benn dëkk Europe wala Amérique wala fenn di fa liggéey am virus bi mhm. tubaab bi di leen faj wala boog di leen jox ay calmants ñu ñëw ay rendez-vous vacances jot ñu ñëw seen jabar toog fii toog di xaar ñu ñëw wala ko feebar bi delluwaat malhonnête qu'elles sont parfois duñ ko mën a wax ni ko wax dëgg yàlla lii mooy suñu feebar te loolu vraiment musiba la kon nag dañuy ñaan képp ki xamante ne feebar dal na la boo ñëwee nga jéem a seet nan la ñu mën def ba ñu protéger la ba doo ko mën a wàll sa soxna d'accord xam nga loolu itam mat mbéyang lu am solo la te lu mat a mhm, leeral la mhm. nit day am feebar nit feebar ñëpp lay dal mën nga tukki feebar nga am ngëm yàlla gu toll nii nga jàkkaarloog sa soxna ne ko kat dama la fee bàyyi woon waaw kay te bàyyi gi ma la fa bàyyi dafa metti voilà lu ne daj lu ne jànkonte nga moom donc du ma ñëw di la ci dolli loo xamante ni mën na laa tere nelaw jàngoro bii moo ma dal donc bu may ànd ak yow naa protégé wu naa protégé wu ba faju ba wér ba faju ba wér c'est simple c'est simple mais nag am na ci jigéen ñi xam te ne duñ ko nangu parce que itam boo nekkee sa jëkkër di ko xaar pendant 4 ans 5 ans 6 ans mu ñëw indi jàngoro mu mu ñëw yaa ngi doon xaar doom mu ñëw ya ngi doon xaar leneen mu ñëw amul lu lay indi lu dul parfois aussi c'est choquant aussi. day métti ci ñoom day mm. toute vérité n'est pas facile à dire. Mm. du neex a wax mais lu mu métti métti nit ki docteur waroo ko nëbbu sa jàngoro. demal ba kay faj kooku am na ci solution. Mm-hmm. xëy na mm-hmm. yow amoo problème la amoo ci solution mais fajkat bi moom du ñàkk dana ci am solution. solution nga doon ànd dem waxtaan ci ñu waxtaan ci ak ñun ñu xool ñun ban anam ak nan lañ koy mën a conseiller. Mm-hmm. mais itam traitement bi itam lu am solo la mbayang parce que Sénégal traitement bi ñaata temps lay jël. Euh, traitement bi dina jël ci weer. yenn saa yi mu jàpp ci ñaari weer bu gënee sori ba sori ci trois mois du ko dépassé. ci ki nga xamante ni moo nekk phase aiguë. phase aiguë bi muy porteur sain bi. d' accord waaw bu demee chronique nag comme ni ñu ko waxee sànq. ba commencé endommagé. waxuñu bi dal ba mu jàppale ci phase cancer jarul sax ngay ñëw mënu ko faj honnêtement dignement mënu ma ko faj. d' accord waaw ci wàllu faju médecine traditionnelle. Mhm. ñëpp xam nañu ni faju cosaan. def na fi mhm. jaloore bu nekk en ñun Afrique dañu war a gëm suñu bopp. Mhm. am nañu gëm ni feebar yàgg na ci àddina dañ daan feebar mm. sunu maam yi dañ daan feebar dañ daan faju dañ daan mm. wér te dund ba téeméeri at dëgg la ñun Mbayang la moo tax léegi mënatuñu dund téeméeri at moom ma jaaxal parce que dañu perdre suñuy valeur boo déggee ko am 80 ans nga ne yu gudd na fan mais nañu xool ci àll bi ku ci nekk nag yi may siraan nañu xool ba téeméeri at léegi espérance de vie bi ku dund sax un demi siècle cinquante ans sant yàlla d' accord am na solo bu baax a baax Serigne Mouhamadou Lamine Bara Fall euh, Euh, comment se prévenir de l'hépatite B. Euh, ci la prévention bi a une question mu mhm. est-ce que yi. Mhm. xam nga mhm. dafa lu d'accord lekk yi dama ci may brièvement ben, exemple. dafa am vous moisissure de nga xam faral ci ci ñebbe. ci ci ñebbe ak ci yu graines dafa am moins xam gunóor boobu bu fa duggee ne bu fa lekkee dafa am lu fay bàyyi lu mel ne lu verte lu xaw nëpp nii lu xaw verte mhm. ci gerte exemple mhm. moisissure boobu moom la ñu tuddee aflatoxine aflatoxine boobu itam bu bëree ci yaram mhm. day jur hépatite B maanaam ñii def gerte segal ñii def gerte riij ñii def ay mburaake ñii def ay yooyu genre façon yi lekk gerte yu bare yooyu d'accord kon ñi koy def nañ ko tànn segg ba mu set xam-xam yeeg nëpp nëpp yeeg yëpp ñebe yu bënn yi yu bënn yi nañ ko dindi parce que yooyu bu bëree sa yaram dafay jur lu ñu naan virus flavus benn microbe la bi nga xamante ni day dugg ci sa xol bu dajee sa yaram te loolu day jur hépatite B. Mhm. kon ci lekk loolu rek la ko mën a amee à part contact direct avec sang bi. jërëjëf Mouhamadou Lamine Bara Fall moom la ñu dalaloon tey ci émission bi nekk Géejawaay Arrêt Doubalès ñu koy remercier bu baax baax ci disponibilité bi euh, di leen jox daje rek incha allahu taala ko defee rek ñu dellu seen àndaat ak yéen ci li nga xamante ni moo nar doon suñu thème de la semaine kon mbokk yi jàmm ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu fi amaanillah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 léegi nag dañu ñëw seet si ko pour ñëw gërëma ko ndax xam naa ni feebar ba ko kële bi ko bi ko daloon euh, moom taxaw na ci te garabam bi wax dëgg dëgg dëgg xew xewalu Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant nag ñëpp nga xamee ni kii yaa nga am nga am nga hépatite B na nga ñëw ci moom da moom mu faj la te xam naa ni boo boo garabam bii ci boppam xewal la bu ko kenn kenn kenn kenn kenn kenn kenn wuute sama jabar yi nii nag moom mi la ko daloon ak ba mu ko fajee yëg na ko xam na ko ñu jox ko micro bi moom mu jëm mu wax ci. asalaamaaleykum maa ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi ñaanal sëriñ bi lépp li ma waroon wax sax sama borom kër gi wax na ko sëriñ bi daal.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 ci barkeem ak ci mën-mënam naa leen sant naa